begtem Noël ci est nyep, na ma dund gi ñu jote ci yéen baneex budul dul jeex mukk nanu teral bu baax xalé yi judu ci dund gi di faj ak ndaxte dund gi rafet te gi yalla la di gën gi maye nañu bañ sonalati xale yiy màgg bañ leen a jëriñoo waaye ñu yar leen ci coofeel ak lewetaay ngir ñu mën a màgg ni mu ware ci mbegte waxtu wi jot na ngir sunu réew eesu ay jëfi neen ngir ñeme wone ci lu wóor ay xalaat yu dëggu ci lu jëm ci xale yi ndaxte mbooleem nawle mu mën a aar ay doomam dafay saxal xalaat bu baax ngir gën a mën a toppatoo ñu tuuti ñi néew doole yi ak miskin yi Noël dafa tax Bethléem doon dëkkub diine bi yàlla laale àddina si ci xolub jaar-jaari mucc gi foofu la yéesu juddoo foofu la yàlla jële yoonu nit ñi ba jegeñ si ñu def boppam kenn ci ñun baat bi yaramu na daldi dëkk si sunu biir barkem bu mat sëkk lañu jote barke ci kaw barke ak cawarte nañu dund nowel bile ni ay aji ngam dëgg ni ab juddu bu bees ci doxalin ak jëfin yu bees ci ku nekk ak ci waree fi doomi réew nowel bi ñuy ubbil suñuy gët ci kemtaani coofelug yàlla ak ci taaru mbind mi ñu war a gën a wég Noël bi ñuy ubbil suñuy nopp ci woote ñiy sonn Noël bi ñuy ubbil suñuy loxo ngir seddoo ak miskin yi nowel bi ñuy ubbil sunu xol ngir dundu mbaale gi ak juboo bi nowel bi ñuy teg ci yoonu tase ak keneen ki lu weesu mbokk gi xeet wi aada ji bokk mbootaayu politik bi wala jën diine ji nanu jànge nag ci borom dund gi ay jëfi ni bokk ak duggante ci weg dund nanu jànge wax ci borom bi sunu yalla ay baati dund di woné ay jëf yoyu weg ak suqali dund ci yalla mi dëkk ci sunu biir nanu jàng aar ànd bu rafet ci nit mi mu Noël moo di xewteeg jàmmug yàlla Yeesu Krista di njiitu jàmm ji na sunu xol fees ak ngëm ci xalaatu yàlla ji sopp sopp nit ñi ba dëkk si ak ñoom soppey sama dëkk leen mbegte na seen dalub xel feeñ te ñu xàmme ko borom baa ngi fii teew na ci sunu biir bu baax a baax Emmanuel yàlla ngi ak ñun mbégteem Noël ci ñëpp ànd ak njiitu jàmm ji monseigneur Benjamin Ndiaye kilifa jàngub yàlla fii ci Ndakaaru